ko def tuuti ci wolof damay test seet sa wolof bi ndax leer damay gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu tënk ko rek di nuyu le président Macky Sall moom mooy le président de la coalition Macky 2012 di nuyu leader yi nga xam ni bu dara dul dara ñoom ñoo gëm président Macky Sall ànd ak moom ñu leen di tuddee euh, ay petits poussés mais petits poussés yooyu ñu la wax ñoom ñoo gunge président Macky Sall day jàllaloo ko def gi mu mën a affronter au deuxième tour ki nga loolu ba mu amee ñu xeexandoo la woon ñu gañeendoo ñu gouvernendoo Sénégal ensemble parce que lu am solo yàgg na ko wax la patrie réew mi avant suñu ay parti loolu def na ko ñi ñëpp ñu gis ko di def liggéey koo xam ni di ko jàppale di fësal di faram li nga xam ni moom la fi def parce que réew mi am na fu ñu ko fekk de tey yokkute buñ doon wax dem ci tey sa ñëpp gis liggéeyu nit nag tout n'est pas mais ci gunge bi également di ci nekk di ci bilan bu muy def ñu nekk ci ay contrat mu nekk de un bilan insatisfaisant ou pas satisfaisant ou pas nous sommes contents nit da ngay am foo féete di wax loo xam ne moo am loolu moo tax Macky 2012 bu ñu doon naan am na léthargie bruit bu mu def temps yi baax na ci parce que tamit am na solo tax na tey ñu mën a concerner léthargie amu ci bu fekkee léthargie amoon nañu di ko nooro la woon duñ ko donno waaye xam na ñi bi ñu jël tey di inaugurer siège u Macky 2012 fii si croisement 22 occasion la pour ñu siffler fin wu léthargie boobu fekkoon am na renouvellement yi am le 7 septembre dernier nga xam ni samay àndandoo yi nga xam ni depuis boobu ñu ngi ànd amul njëkk ñëw amul mujj ñëw lu am solo mooy nga am njëriñ ñoom ñoo décidé le 7 septembre jël seen confiance teg ko te yàlla xam na ni j'étais pas le plus méritant def nañ ko ba bu soobee yàlla du ma leen décevoir parce que j'ai jamais déçu quelqu'un loolu mën nañ ko merci mon DG. li ma bëgg rek mooy woote suñu mënul nekk benn ñu àndandoo dóorandoo jàppale président Macky bu fekkee ñenn ñi bëgguñu àndandoo boobu te Macky président Macky Sall nekk seen xol je pense que am nañu liberté nekk ci loolu ñu créé dem jàppale président Macky ci loolu ñu créé parce que ñun bëgguñu kuy boole leader yi seen biir. bëgguñu kuy boole leader yi ak président Macky Sall ci loo xam ne du dëgg parce que dëgg rek mooy mujj tey yëpp la yem ci fanweeri parti structure yu nekk ci Macky 2012 ñaar fukk ak ñett yëpp ñëw loolu moo am solo daañu ubbi coalition bi nag na leer ci bopp ñëpp parce que kenn ko tëj dinaa suñu affaire bopp la maa njëkk a ñëw keneen du dugg te kooku bu xam na ni complètement gën a diis. loolu laay wax utilité am njëriñ waaye tëju rek ne kenn dugg loolu du politique politique addition la donc moo tax ñu ngi woote ci solidarité mais également di def tout pour nekk benn bëgg nañ nag continuer di yaatal di massifier parce que coalition bu am doole dafa war a nekk ay parti politique ay structure également yu am doole te loolu dem ci section sénégalais yi ci suuf politique ci suuf la du virtuel li may wax léegi mooy dem naa également boobu ñu ma falee seeti leader yëpp kenn kenn par kenn wax ak moom am na ñu ma jotuloon gis ñaar ñett kenn ngi ni agenda am chargé man jotuma gis ak moom mais gisoo nañu bu baax dem naa seeti sama frère sama grand frère Ibrahima Sall oui le président du modèle waxtaan nañu sur beaucoup de choses dem naa gis yi vraiment amul exception loolu moo tax jot na ma leeral dara ba ma demee seeti le président. Ibrahima Sall def naa démb démb gisee nañu démb la bëgg démb bëgg démb dama ko dem seeti parce que am na koo xam ni moom ko jotuma ko woon gis parce que ni moom ci màggal bi nekk ci masale bu jinam nekk ci passation de service loolu moo tax gisee ñu war def réunion commencé mais depuis réunion yi di dem ba léegi il vient il est représenté ma dem seeti ko di ko li nga xam ne ñu ngi koy def ak coow li rendre ko compte parce que moom nekkoon na coordinateur information boobu gis naa mu génn ci presse bi ñu wax dafa demoon di ñaan jubale nekk moo dañ koy wax médiation loolu yóbbu ma fa woon dama demoon yëgal ko comme nu may xoolee ñëpp te moom gisuma ko woon rattrapé gis ko ku war a laaj médiation mooy ñii ñu dàq bu ñu buggee médiation ñii ñooy décider du man man mënu ma dàq kenn amu benn pouvoir mënu ma dugal kenn amu ma ci benn pouvoir charte bii ñu validé moo ne la conférence des leaders mooy jël décision yëpp te bés bu ñuy jël décision yi vote la ñuy def démocratiquement et la majorité a décidé de notre sens te loolu même bu ma ci comprendre dama ci d'accord par respect maa ngi terminer vraiment pour demander au président Macky Sall bi nga xam ni leader yi nga xam ne ñoo fi toog structure yi bu dara dul dara ñoom ñoo ko gëmoon ànd ak moom xuus ak moom def mu sorte que mu nekk président de la république defaat de sorte que ñu réélire ko en 2019 def aussi ñu ànd ak moom di si gestion bi man ma dégg dem dikk am na ñoo xam dégg na leen histoire yu bari ñu ngi liggéey. donc coalition bi également am na loo xam ne def na mooy jour élection bi 7 septembre ba mu décidé teg coordonnateur teg na vice coordonnatrice élu dans les mêmes conditions mais tegoon président d'honneur président d'honneur war a jouer un rôle sage mooy suñu doyen Moustapha Fall moom moo nekkoon coordonnateur ñu def ko doyen d'honneur maa ngi profité de l'occasion pour que doyen Thié lancé ko appel pour que rôle sage boobu mu gën ko di ko di ko di ko joué say doom yi wala say frères yi ñu ngi jàppante balaa ñu egg fenn nga woo leen dajale leen fii. wala feneen bu toog waxtaan mënoon na éviter lii yëpp je profite de l'occasion également pour lancer mon appel man je suis disponible sama défaut am jot am naa jot may la voix de ñi ñu fi toog yëpp je ne crée rien lu ñu wax lu ñu bëgg loolu ñuy def loolu moo am solo maa ngi remercier également presse bi parce que j'ai wuyu si loolu massivement xam fu dëgg bi nekk man match de football quatre-vingt-dix minutes laa ci xam je pense que yëpp leer tey am na ku ma ne woon def service après vente demain mais je pense que danañ ñu tëj livre bi xam na ni ba am na ñoo xam ne ñu moytu di porter le combat yoo xam du seen combat am na sama xarit buy naan foo jaar gis ko affaire bi course de fond la woon du woon course de vitesse. ko Ba waxee ñu ngi ñaan ndox. maa ngi leen di remercier ñëpp di ñaan président Macky Sall mu recevoir coalition le plus rapidement possible. loolu yi ñaan ko defe naan dans un futur proche dina ko def ñaan doyen loolu defe naan jàpp na defe naa balaa ñuy terminer ñu ñu ñu remercier ñëpp remercier waa Kidal yëpp remercier jeunes yëpp remercier président Macky Sall